leen di nuyu bu baax yéen yéen gàttanu nuyoo bi ziyaara bi yéen ko delloo gannaaw nuyoo bi noo ngi gën a sant sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi di gën a sant yi sëriñ bi muy suñu lépp tey ak ëllëg ndax lu mat a fàggu fàggul nanu ko te jubóo na ci borom lu mat a ñaan ñaan na ko te borom nangul na ko kon sëñ liggéey sëñ bi rek fi nekk liggéey sëñ bi rek fi nekk eh, liggéey bii nag moom ndokk bi nga xam ne man caa bokkoon fii lañ ma fekkoon ma ànd ko yéen ndokk bi nga xam ne caa bokkoon waxoon naa ne nag ca booba bu ngeen amul bu ndokk lépp mën naa nekk ci seen loxo noonu laa ko noonu laa ko xamante noonu bu amul bu ndog amul te dëggu am fu ngeen bëgg màgg fa dana dana ko weesu dana ko weesu njort waaye lépp nag nay sëriñ bi lépp nay sëriñ bi bu daal lu ci rax lu néew néew néew rek mën na ko yàq ndax sëriñ bi raxul raxul dara digg moom borom sëriñ bi raxul dara digg moom borom kon liggéey bii liggéey liggéey boppam la dëgg la ñi am chance ñi am tawféq euh, ñu tudd leen ci liggéey bi waaye lépp tawféq Sëñ Tuubaa la ak paggutif ngeen xam loolu xam ne da ngeen am tawféq waaye liggéey bi liggéey bi Sëñ Tuubaa tey ni mu doxee ak fii mu àgg niiw na euh, mbooloo mu jóg dara tax leen jóg ñu jóg àgg fa déedéet liggéey bi Sëñ Tuubaa moom moom mooy moom mooy kawee di di wéy kon da ngeen am tawféex rek waaye liggéey Sëñ Tuubaa la ngeen ngeen waaye nag ngeen xamee ko noonu da ngeen ngeen am ngeen tawféex yi nag da ngeen di xam ne seen tawféex la rek waaye liggéey Sëñ Tuubaa la dëgg la kon taxawal ngeen ko waxoon naa leen bu ngeen amul ndog fu ngeen bëgg màgg fa rek dina ko mën na ko dina ko ginnaaw nag alhamdulilah rabbil alamin yéen lii liggéeyu Sëñ Tuubaa la am yéen am tawfeex ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci booloo ci booloo ci kaw parce que yéen ànd di sa liggéeyal Sëñ Tuubaa loola alhamdulilah rabbil alamin lu mën a wéy lu mën a wéy ci kaw ngeen xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa rek la yoon kenn nekku ci il faut ngeen xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa rek la ngeen bi di jiitu positif bi day jiitu jublu gi jublu jublu gi tegu ci bu ko defee noonu xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa la ngeen ànd ngir Sëñ Tuubaa di liggéey Sëñ Tuubaa kon kon tawfeex Sëñ Tuubaa jii nga xam ne moo ko indi moo leen di gàttandu niital fi ngeen am fi ngeen loolu rek mooy li ci am solo xam ne liggéey bi dëgg la waaye lépp ci bàggu bi waaye dina am tawféex ci taxawal liggéey bi kon nag ngeen fexe rek ba fu ngeen bëgg fu ngeen ko jëmee rek mu àgg fa dara leen mënu doon ko may nag loolu la mu sëñ tuwaay kese sëñ lépp na sëñ bi tax ngeen taxaw ngeen taxaw takku ndax saa yu fas yéene xam ne da nekk ci liggéey sëñ tuwaay dëgg nag ci saayir si mënuñoo ñàkk daal tudd dara ndax comme société ni lu mel ni société comme dafa mel ni kon société la société ndax doxinu jamono la mm-hmm. waaw man dara newu ci waaye nag yéen nga xam ne seen société bii moom sëñ Tuubaa ko moom nii mu doxee ak fii mu àgg sëñ Tuubaa rek la waaye mën ngeen sant yàlla ndax yéen am tawfeex bi ñu deen ci tudd la ca des la des nag la ca des kon mooy yéen ñi yéen ñi yàlla defal tax ngeen ànd ngeen ànd ci ngeen góorgóorlu nag déggoo ndax déggoo gi mënu déggoo gi mënu ci ñàkk moo leen dimbali ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen mën a koo saytu mën koo yor doxe ko doxe na ngeen bëgg a doxe màgg mu wàgg fu mu war a àgg il faut que ngeen déggoo euh, yaakaar naa ne déggoo gi li ci ñàkk a gi li ci indi rek moo di dafa dafa dafa dafa taxawul dafa dëgëragul dafa dëgëragul waaw mbirum bi rek la moo ko àggale fi mu àggale ginnaaw dëgëragul nag ala kulli koy dëgëral mooy ngir ànd te déggoo ngir ànd te war na wurt ci àdduna génnee rek rek dana yomb li wax ak caa man ci bokk dogal caa bokk da ngeen fay bokk ci ba léegi kon war na maa wax ak yéen kenn laa ci yéen man naa wax war na maa wax ak yéen ak cër cër bi ngeen ma jox mu ñaari cër yooyu laa laa laa ciy waxee kon faw déggoo am waaye mën naa yomb ndax ni ma ni ko déggee ay ay ay jooyoo ngi ci ay jooyoo ngi ci waaye jooyoo gi li koy dindi rek muy ci ne liggéey bi liggéey bi Sëñ Tuubaa la kenn ku kenn ku nekk ci yéen moom laxasaayu xa jàpp ne da si liggéey bi Sëñ Tuubaa bañ ci sédd dara nag ndax lu ngeen ci sédd rek ci wàllu adduna rek du dem du ngeen dem kon déggoo diggi diggi amul solo xool leen xool kenn ku ne la ko la ko ci dugal liggéeyal Sëñ Tuubaa la na na na na dëggu rek dina jeex ko defee ngeen ànd yéen ñëpp ngeen ànd yéen ñëpp xam ne benn liggéey bi benn la lu doon doon mbooloo itam liggéey bi benn la te ngi Sëñ Tuubaa kon il faut que ngeen déggoo ci seen biir ndax mooy tax ngeen mën a gi mënu ci ñàkk il faut ñu déggoo seen biir li dox seen diggante ba ñu amul solo yooyu ci am nañ ci am xam naa ne amul solo bu dëggu gi amee rek jublu gi am rek ngeen xam ne Sëñ Tuubaa ngeen di liggéeyal lépp dana na sax lépp dana na sax ngeen xam ne itam nag bu ñu nee société ay société ngi ci ngi ci réew mi waaye benn société boo xam ne war na ci mën a ëpp doole bi daanaka amul il faut ngeen jógaan nag gën fas yéene ko gën a gën a dëgëral ngeen koy gën a dëgëral ma ngeen bañ a te xam ne suñu tool ci li nga xam ne nag ma da war mi nga xam ne war la defar rek la maslaa maslaa maslaa baatu arab la mooy mooy nag du ci mën a ñàkk dangeen ko da di dellu saar nag tegaat gën koo tegaat ci yoon société la ngeen gën koo tegaat ci yoon ndax moo leen moo moo moo moo doon moo moo daanaka mooy mooy boom gi leen di takk boole takk yéen ñëpp. te la ca jiitu mooy ala kulli xaal ngeen il ngeen def li li da ngeen ko def da ngeen di seet da ngeen da seet ñu xam administration ngeen won leen société bi won leen ñi ko ŋànk ñu xam kenn ku ne la jaadu ci moom ci masla ci àqam ndax ku tënku ku ci tënku ci yoon liggéey bi rek kooku dafa da nga am sàq boobu ak jooju il faut ngeen ñi xam ne xam ñi nga xam ne xam ne administration il faut ngeen seet ci ñoo xam ne xam ne leen tëral leen ñi ñi ci tënku ñëpp kenn ku ne lay àqam ñu di ko ko jox loolu euh, mënu see ñàkk ndax euh, liggéey bi rëy na lool te it kawe loolu rek la yaar yow rek la. ngeen ñun ñëpp ngeen bokk génn jublu gi xam ne Sëñ Tuubaa ngeen di liggéeyal ngeen wëlbatiku nag dimbali société bi ndax mu gën a ndax mu gën a mu gën gën a gën a gën a gën a mën a dox loolu nag mooy eh, def maslaa yi ci war ngeen seen ñi xam administration. ñu seetal li ñu seet ngeen gis ñi ngi tënku ñi tënku ci liggéey bi kenn ku ne lay ak xam ñu xam ko ñu weer bu dañ jox ko ko loolu mënut a ñàkk loolu mënut a ñàkk kon il faut que ngeen defee ko noonu daanaka kon yar yooyu rekk la ngeen wëttandi ko ak yooyu seen biir lu ngeen mën a juyoo rek lu jikko yu wute wute lu xel xel yu wute wute bi moom benn la mm-hmm. ngeen góorgóorlu nag kenn ku ne xeex ak boppam

jublu gi maslaa bi loolu mënut a mënu cee ñàkk ci société bi te it ngeen xam ne liggéey liggéey bu rëy la amul benn société boo xam ne yaakaar naa ne mën na ko war na ko mën a ëpp doole ci senegal wala bu ko lu ko ci ëpp bu doxee tuuti dana tiim société yëpp ndax Sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom moom moom la boroomam may te boroom may gi yëmale ko fenn lu ci mat lu ci xaj si dana feeñ dana lu ci xat lu ci xaj ci àdduna dana dana feeñ da xam ne xajul sax ci àdduna waaye la ci xaj nag dana feeñ te wërsëg ci la bokk mayam gi wërsëg da cee bokk wërsëg da cee bokk man sëñ sëñ Bilal am nañu waxtaan woo xam ne eh, dama ñëw rek ku fekk ci mbooloo mu ñëw fekk mu taxaw ci moom Modou ma a nekk. dama ne sukk ma gërëm sukk nuyu mu daal di jàpp suma loxo as mbaar su ndaw su gàtt ngi fi mu daal dem ba ci mbaaram maa moom rek mu toog mu toog ne fa lañ ma dama laa bëgg a wax. wala sëg mu dana wax tuuti rek.

moo moo fi te tànk yëpp rasulullah ko moom tànk bi la ñëpp bokk tànk bi juróom yëpp xaram la loolu mooy mooy adduna yi fi fasel mun fi fi ne ak tànk yëpp rasulullah ko moom mun ma tànk nag fukki su la juróom-ñeent la benn bi rek moo ci lew mu ne bi sëriñ bi ñëwee mu ne mu ne rasulullah yi ñeent fukki tànk yooyu ak jaru ñoom fi dafay xaju ndax ñeent fukki at amul atte ñaar fukki at yi ci jot ñu aj wërsëg woowee ci ñeenteel bi asamaan bi sëriñ bi ñëwee liggéeyal yoon te ba mu gënoon ko ñu aj wërsëg woowee jox ko te jëmul ëllëg jëmul ëllëg noonu sëñ Tuubaa sëñ Sëñ Sëñ moom ko wax moo tax ma ne ma ne li ko li suñu borom li mu may sëriñ bi wërsëg da cee bokk da cee lenn la ci rek lenn rek la ci wërsëg lenn rek la ci kon bu ngeen xooloo xalaatee loolu da ngeen xam ne fi ngeen tàmbalee ak fi ngeen akk ji gaaw gaaw gi gàtt da ngeen xam ko da ngeen ci mën a xamee ne dara la dara ji muy sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa rek la ak mayam yëmul fenn waaw da ginnaaw ngeen taw fex nag jóg ne da ngeen di liggéey sëñ ah mu ne da gàtte nu leen nan mu ne dañ si gàttanu dara nag du ko yóbbu fa ko bëggee lu dul rek yii ma wax il faut que jublu gi day genn mooy liggéey sëñ Tuubaa il faut que ngeen déggu seen biir di ngeen di jikko yeeg xel yee xalaat yeeg yëpp sax génnee leen ko xam naa ne loolu man mën mën daa jaar naa ci loolu xam na ni mën na ko sëñ Moussa dama ko daa wax foofu may ñëw rek eh, na nga xam ne ënd maa ko jikko ënd maa ko xel kon wuur na ma ne jublu gi nga xam moom laaj te ngeen ngeen mën a dox déggoo déggoo la laaj déggoo kenn ku ne day bàyyi ci ko mu xelam ngeen ànd rek jublu ci liggéey bi la ca des mooy seet masaa yi ci war ndax ci du mën a ñàkk da xam ñu xam ñu xam société ñu xam daraje ñi ci ñi ci tëggu di ci liggéey kenn ku ci ne lay àqam ñu ñu du ko ñu du ko jox jublu gi déggoo gi masaa bi waaye da génn jikko yi moom ak xel yi da ngeen koy génne fe sànni leen ko man man jaar naa ci xam naa ne mënees na ko dëggu gi rek moo ci am solo dëggu ci seen Tuubaa rek moo ci am solo dëggu gi rek waaw loolu rek la ca dolli ko mooy bu ngeen fi jógee li tàmbalee tey lépp lu ngeen di liggéeyati na ngeen ko tënk andil nga xool ko lu ca nekk lu ca nekk rek ci loo xam ne mooy tax moo moo koy gàllankoor wala loo xam moo koy tax a dem daanaa ko xam danaa leen ko wax sëñ Bas naka rek la de waaw ah, la ca dolli ko nag bi ma déggee digmati yi eh, di jooy yeeg yooyu yooyu ba ma dama dama dama ne liggéey lenn lu ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa du ma seetaan mukk ñu di ko rax lu ko nam ma rax rek naa xam fa may jaar noonu nag dëgg dañ bas na nga def noonu baax la bopp lay tàmbalee la nga waxoon Alaaji Baara digg naa ko maa yow yàlla moo fi nekkoon moom am lu mu laaj nga ne ko man ko du ma digal du ma tere soo kii du ma digal du ma tere soo kii bàyyi naa ko bopp bàyyi ko sama bopp man mii nu laa fas yéene def wala bi yëpp lu ñu fas yéene def lii nga xam ne moom yëfi Sëriñ Tuubaa la yaa fi nekk Sëriñ Tuubaa noo ko bëggee rek bàkki doon ko defee ñu ne amuñu tànn amuñu bëgg lépp tey ni ko sa loxo ji bënn na ko Sëriñ Tuubaa képp dañu ay ay seen maxa lañ lii bi ay dab dafi nekk saafara bi pësante xamee wuñ ko weñ nag dàbbali ji ab soow waaye xëy ko tax bu tàbbi ci waaye du bañ bëgg gopp rek boo tax lu ñu def ñoom te rek la ñun ñëpp dañu jéggal jotaay yi nag dañuy jéggal njaal bu fi bari mukk ci àdduna ndax bëgg naa sori ci dara ñëpp kenn loo nga ñor su njukki war nañu ko delloo fële te jéem a dugg ci ibaadatu waaye waaye aada ku ne aada aada la fii noonu aada ji ñëpp dañu ko bàyyi ci àll ba jël jël ibaadatu suñu toog ma ibaadatu ñu ngi joxe suñu bopp suñu lépp ñu teg dem sa loxo jëbbal nañu ko Sëriñ Tuubaa

xëy na doomu aadama nag moom nii la demee li nga wax suñu jukki kenn ko am jukki joo xam ne ko ànd kenn waaye man moom mii nañu ko ko dégg suñu ko dañ ñëpp dañ jël dañ kenn ku nekk suñu saariwu dama si yow ci moom di ko nit ñi bëgg a dox ma bëgg nga teg ma ci yoon loolu ko de daa dema doomu kenn ku ne xool jikko ba ma nga téye ko benn jikko si yàlla jikko jikko ma téye ci ñoom xarit kenn mën naa wax lu ma gis nag muy bëgg Sëriñ Tuubaa. waaw ah, noonu rek loolu laa téye ci ñoom de. Eh, di baax loolu laa téye ci ñoom. <laughs> kenn mën naa yàq doomu aadama nag. tarkalla kenn ku ne téye naa ci kenn mën naa yàq sama morom ci. tarkalla lu ma ci jox kenn du dégg ci. waaye mbooloo maag maag ñëw ñëpp daal. ndax bis nga tey. yow mi xam ne bopp xar yaa ko mën a ŋànk. ŋànk suñu bopp bi xar na. dimbali ñu ngi Sëriñ Tuubaa. ba lii dara bu ci am tey. ci laa nekk incha allah waaw dimbali ñu ngi yàlla lépp loo loo xam ne dama ko ànd ak yéen dama ko àndoon sax waaye dañ ko gën a ànd maa ngi seen biir lu xew lu mu mën a doon rek mm-hmm. waxuma sax lu ko jar. waaw lu mu ci mën a doon rek. lu ko jaree danaa ko yëg. waaw ñun daal lu ñu def lu ñu def ak xëy rek waaye yàq xam rek la. Mm. ba damaa doon glace mu xër ay doomu aadama ñu juddoo mang ah. mangandoo yi bokk fi yaroo. il faut que ñu jaxasoo rek. dëgg la dëgg la kenn ku ne jikko dara am ju jëf waaye jikko jooju ñun ñëpp dañu ko teg fële. dëgg la te yéen jikko yi ba sëñ bi rek. dëgg la dama jéggal jël te jar yi mooy mooy sëñ bi. ñu naan ñu gën a ñu naan suñu bopp de gën a ngaan mbooloo bi ak parce que yëpp nga téye ko ndax pas-pas bi nga wootee parce que bi nga woote ngir Sëriñ Tuubaa tax war nga ñu aw yoon ndax loo am na nga toppee la ko may na nga toppee lu mënta may dama la amut ma maa wax maa wax woon waaw man sama kilifa waaw dafa koy bàyyi ak boppam bàyyi koog sama bopp loolu laa jëfe boobu ak boobu si ca tey waaw ñun itam ñun ñi ñuy seer yàlla bi ñun bàyyi nañu suñu bopp bàyyi la sa bopp lu ñu digal lu ñu tere loo am rek na nga kilifa la ko may <laughs> te nit ku bàyyi da nga am kilifa la doo doo jumati bu ko yàq kon jox na suñu lépp gi Sëriñ Tuubaa jërëjëf ñuy jégul kàddu yu yëkkati barkala jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke